asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu liggéeyu daara ju mag ji di mu jàmm cheikh ahmadul xadim bi cheikh mohamadou muntaxa mbàkke di liggéey mi ngi sori ñu toll nag ci war a tàmbali njàngale mi ci yenn ci wànqaas yi balaa yàgg loolu mooy sababas jataay bii amoon cheikh mohamadou bachir ibnu sëriñ abdul xaadir mbàkke yor kàddu sëriñ bi fegguk sëriñ ahmadou badawi ibnu cheikh mohamadou fadal mi sëriñ bi jiital ci liggéey boobu ñu yëkkati ay kàddu yu leeral mu jëm ci tàmbali liggéey boobu di jataay bu amoon alxames fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru gàmmu atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñeent ci ati gàddaay gi dëppook 13 octobre atum 2022 ci Touba Daaru Minan ci teewaayu Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké xalif général des Mourides. bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi lazi li haza wa maa kunna linahtadiya lawla an hadaana allah aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ci ndigalu sëriñ bi yëkkati ay kàddu yu gàtt yu jëm ci bokki jullit yi ak yi kàddu yi ne li ci jiitu mooy sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant sëriñ Tuubaa di ñaanal di ko ñaanal moom mu yàgg fi loolu te ànd ak dolli suñ borom dolli kàttanam ak wéram ba bëgg liggéey Serigne Touba lépp mu sotti ni mu ko bëggee kàddu yi nag li ci jiitu mooy kàddu sant rek ndax liggéey bu rëy bii nga xam ne ba yàlla defee ci suñ borom teg ko ci jataayu Serigne Touba bi mu nekkal fi sëriñ bi kàddu yi yëpp njëkkoon a yëkkati wax ko wax ne bi ma agsee amu benn xalaat. wala jënd yitte lu mooy sumb daara jure ji nga xam ne sëriñ Touba moo ko naaroon mu desoon fi ci ay naaram mooy yitteem bi jëkk mooy yitteem bi mujj kon nag dañuy sant yàlla bu baax ndax bu yàlla defee muy bëgg-bëggam am ci taw feexe sëriñ bi it mu dem ba liggéey ba toll ci li ci ëpp àgg ba bu jeexagut it waris na ko mën a tàmbali ba ci weeru octobre bi ci lañ ko war a mën a tàmbali Serigne Ahmadou Bado yi mi nga xam ne moom da Serigne bi teggoon loolu ci loxoom lépp bañ saytu mboolem liñ ci war a def ba ubbi nañ ñi nga xam ne ñooy war a dugg ci biir daara ji dana ko gën a leeral kon sëriñ bi nag li jiitu ci kàddu yi mooy sant rek sant bokk julli di sant bokk taalibe bi di sant itam ñu bokk Serigne Touba. ak mboolem ñi nga xam ne seen maam yi ñoo àndoon Serigne Touba ba yoon wi agsi fii mu agsi tey ci naalu réew yi nga xam ne Serigne Touba boo demee ci Matlabul Fawzayni daa waxoon ne li tax mu sanc dëkk bi mooy daw nit ñi ak daw li nekk ci loxo nit ñi wax ne li tax mu sanc ko mooy li taalum wa taalim wax ne mu ñaan suñ bo mu nekk maskana taalim waaye mu nekk maskana taswib mu nekkit mashkanal irshad kon loolu lépp mooy tekki ne sëriñ bi dëkk bii di Touba yéeneem jëpp moo doon mu nekk dëkku xam-xam ne ko sëriñ bi waxe woon ca ba muy woote liggéey bi ci kër sëriñ Touba gi wax fu ñu déggee jàngukaay yu mag yi bëgg na bii buleen leen jiitu tam bu mu leen yées keroog ba muy teg xeer wa ci loxoom yu tëddee ànd ak njabootu sëriñ Touba gi gépp kenn desut mu ñuy fàttali ba sëriñ bi di teg xeeru njaarim waaye kàddu yam ci waxoon ne muy ñaan liggéey bu laal suuf mukk loolu di wax ju xóot joo ne mel na ne sëriñ Tuubaa gàttandu na ko ci ndax lii kat université doonu du yomb doonu tam liggéey bu tuuti waaye ñëpp bàyyi xelit ne la waxoon daaw jég daara ji bu demee ba àgg itam nañ xam ne li koy saytu ak li ko yor mooy ëpp la ca la ko tabax kon loolu itam nit ñi nañ xam ne ab noflaay amu ci ne ñëpp takkaat la xasaay rek gën cee góorgóorluwaat ba liggéey bi lépp sotti waaye itam la yor itam ñoo xam ne lépp ñom la war taalibe la war te xam ne kuy dàkk bëgg Sëriñ Tuubaa dara jiitu ko ci loo ko war a dàkke xam ne sëriñ bu mu ba nag ni loolu mooy jiitu ci ab ab liggéeyam Cheikh Ibrahima Fati xam ngeen. ki ko ci sëriñ bi féetale woon ak sëriñ Mbacke Bousso ak sëriñ Daam Abdourahmane kon sëriñ Touba loolu moo doon ab liggéeyam daana wax ne waxtaanu ma damay jàngale kon lii bu demee ba agsi fii tey te Cheikh Mouhamadou Moustapha ko fi njëkk nekkal xam ngeen ci lu wér ne eh, waxuma taxawali daara waaye moom ci boppam daana jàngaleel boppam ba am na ci ñëwar sëñ bi ñoo xam moo leen jàngal kon Cheikh Mouhamadou bi mu inauguré jumaa ji mook daarul maarif al islamiya ñoom la ubbeendoo kon loolu nañ xam ne kon mooy seen dite ba ci lii somb yi nga xam tey Cheikh Abdoul Ahad Mbacké yàlla def na ci loxoom la ko tàmbali woon ndax sëriñ bi xam ngeen ne yónnee woon na Égypte yónnee woon ci réew ba Màkka sax ngir ñu jëlee ko fa ay téere ba ci Mauritanie yoo xam ne lim ci mooy dane bu daa sama daara ji noppee fenn fu ne waaye dafa jugee di fi si kon loolu lu yàgg na moo taxoon Cheikh Abdoulaye defoon maktab bi boo bëgg ko naa laa daara ji Cheikh Abdoul Khadir itam Serigne Cheikh doomam wax na ma ne fukki weer ak benn lim fi am ba mu koy tàggu ko ne sama liggéey bépp de li ma li ma ko fas yéene mooy jàngukaay bi Serigne Touba bàyyi woon ma fexe ba àggale ko yàlla suñu doom dogal ko. ba yàlla def Cheikh Saliou Mbacké ñëw àggale woon liggéey bu njëkk ba bañ ubbi daare alxuraan ji ak daare majalis tegoon ko ci loxol sëñ Moustapha doomam ak sëñ Abdoulaye suñu son ak sëñ Jili ba yàlla def as Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ñëw mu bokkoon ci ay naalam ñëw mu bokk ci ay ba yàlla def na ku ne nag dala suñu borom cërale ak la nga xam ne sa bàggute fa sëriñ bi ñëw sëriñ Touba gàttalu ko ci gunge ko ci moo xam ne aw ma jënd yi tëjul ji kon nag boo ci yàlla taw tawféex ba liggéey ba toll fi mu toll kon tawféex la joxam ne jàpp naa ne bisu bisum ndam la waaye bisub ndam la ci lislaam bisum ndam la ci sëriñ waaye bis la boo xam ne moom mii kat bu fekkonte ne sëñ naa puukarewu man istaa xam ne bisub puukarewu la na ko sëriñ bi wax waxoon ca njaarim kon na xam naa ñu xam ne. ubbite gi daal kon jot na ñu teg nag loxo lo kàddu gi ci loxo la sëriñ Ahmad Badawi mi nga xam ne boo ko sëriñ bi wax yëkkatee daa waxoon ne dama leen cee fekkoon ci liggéey bi moom ak waa daayira Rawdu Rayaahiin ñu du ko taxaw ñuy taxaw mboolem lu jëm ci xam-xam ci dëkk bi yàlla def mu fekk leen ci ñëw ànd kook ñoom jëlaat liggéey bi yëpp teg ko ci seen loxo ñu def ci taxawaay boo xam ne amatuñ guddi amatuñ bëccëg bàyyi nañ seeni liggéey. bàyyi seen seen waxtu lépp jëmee ko ci liggéey bi ngir bëgg xam ne bu sëñ bi xolam seddee la mu bëgg mu am kër ñëpp ñu am luñ bëgg kon nag ñoom yàlla def na ci tawfeex ak ndam ndax liggéey bi ko xam fi mu jaar ba agsi fi doon lu yomb ndax mën xaj bi nga xam ne nañ ko lu kawe la loo xam ne yaakaar naa boo ko yóbboon ci yeneen dëkki lislaam yi itam ñoom dañ jure waaye fii dootuñ jure kon ni ko suñ bëgg woon amee na kon nag ñi ngi ñaan ci barke Sëriñ Tuubaa yàlla na ko fi suñu borom bàyyi ba naar wi lépp sotte ba xelam dal ci ni ko waxee woon ndax nee na balaa sumbaat dara université bi day àgg ba xelam dal ci ba yore wi lépp leer ci moom mu dooru sumbaat leen kon nag loolu lépp yàlla na sotti ba mu sumbaat leen ci kanamam te lépp mu fekk ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. aouzu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala ashraf al sayidina wa moolana muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi wa xeera xadimihi ajmain asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi yëkkati sunu kàddu di ci jiital ab nuyoo bu tedd bu sel bu kawe akub ziyaara jëme ko ci Cheikh Mouhamadul Muntaqa di ñaan sunu borom bàyyil na ko fi te may ko wér ba lépp lu mu yéene liggéeyal sëriñ bi mu mën koo def ni mu ko bëggee te ànd ko ak moom di sant sunu borom bu baax a baax ci jataay bi muy jataay boo xam ne dañ koo def ci ndigalul sëriñ bi waaye yëgle tàmbali liggéeyam bu tedd bu sell bii muy liggéey boo xam ne liggéey bu sëriñ Touba la liggéeyub sëriñ Touba mooy liggéeyub yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy liggéeyub lislaam mooy liggéey bu jullit yëpp sëriñ bi waxoon ne ca kàddoom yi tedd ya dafa bëgg daara joo xam ne dafay tàmbalee ci kii dal baasin ba ca njobaxtan la loolee nag ban ko xalaatee mu am taw feexi mu duñu ci liggéeyloo waxtu wu ñu tasee dañ sant sëriñ bi ñaanal ko sant sunu borom sant sëriñ tubaa ndax sëriñ tubaa liggéey loo la ñi seen aajo faju ñëpp maa ngi ñu ñëkk ñu baax ñe dañ doon dàkk bëggu sëriñ bi nu am taw feexi nag taseeg sëriñ tubaa mu ne nu lii laa bëgg te nii laa ko bëgge saa buñ jotaa buñ toog rek loolu la ñuy tàmbalee sunuy kàddu soog tàmbalee waxtaan loolee nag sëriñ bi ba ciy liggéey nu xalaat ne kat li nu sëriñ bi wax mën xëj la mën xëj tarbawi mën xëj tarbawi islaami muridi wala mën xëj tarbawi islaami bu cheikhul xadim buñ ko doon wax ci waxinu gone yi ni ñu déggee mooy modèle wala système éducatif boo xam ne dafay indi njàngulem lislaam moom sëriñ tubaab bu ñu waxee Serigne Touba mooy njàngalem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, bi nag ku koy liggéeyal ci li ngay tàmbalee mooy daaree alquran ndax alquran mooy léppam lépp sëriñ bi mooy alxuraan moo tax ñu waajal daare alxuraan yoo xam ne gone gi dafay jàng di mokkal alxuraan foofu la ñuy tàmbalee mooy li njëkk a tàmbali incha allah li ci topp mooy njàngum xam-xam majalis ni ñu ko daan jànge fii ci dëkk bi ci jumaa ji ak ci daara yu mag yi kër sëñ Chouaïb bu ak jumaa daara yu mag yi muy njàngum majalis bi ci topp mooy bi kawe bi li ñu tuddee kulliya wala UFR buy jàngale wàllu dirasat islamiya wala xal arabiya boobu mooy ñaareel bi ñeenteel bi mooy fi ñu jàngalee mbirum kër docteur yooyu nag dañoo xool lu ci nekk mu doon loo xam ne mënut a alxuraan ji moom mooy mooy jëfi sëriñ bi mooy ndam bi xam-xam mooy cosaanul bépp xam-xam bu am njariñ moo tax moo ciy jiitu dëkk bi itam daara la ni ko sëñ Cheikh Mahamadul Bachir wax léegi wajaalu daban maskana taallumi wa mawdia al fikrati wa tafahumi wa maskana al irshadi wa taalimi wa maskana taswibi wa tafhimi wajaalhu maskana xurujin min linnuuri wakfi anhu kulla man zalam loolu moo tax eh, daare alxuraan ji moo jiitu mooy lépp itam daare ji nag sëriñ bi daf koo def ay da koo séddale mboolem kër yu mag yi muy njabootu sëriñ bi ak bokki sëriñ bi ak seex su mag si nga xam ne ñëpp dañoo gàddaa yoon fekk si sëriñ bi fu ne sëriñ bi dafa dugal ab cër ngir taal ba sëriñ bi taaloon mu fëggeewaat gilin ya jël ci ay donga ñu yaroo fi jàng fi ñu yar leen tëbb ko barkeeloo ko ci yar bu njëkk ba xam ne moom la sëriñ bi mag ña moo loolu mooy daara alxuraan ji bi mu noppee tam am na ci lim boo xam ne dañ ko jagleel amatul muridin nga xam ne murid yëpp ñoo ko bokk loola nag moom tàmbali nañ ko ak loo xam ne itam amatul muslimin ndax ni ma ko waxee léegi Serigne Touba moom ñëpp a ko bokk képp kuy njabootu yonent bi sallallahu alayhi wasallam njabootu Serigne Touba nga kon alali Serigne Touba jullit yëpp a ko bokk moo tax cër yooyu nag nga ne Serigne bi daf ko séddale woon dem nañ ci seeni borom ba jox leen ko li nga xam ne nag mooy eh, li nga xam ne moom lañ jagleel amatul muridin dañoo ubbi ab barab ci jumtukaay yu xarala yi yoo xam ne nit ñi mën nañ caa dugg di bindu waaye foofa macha allah sëriñ bi gis nañ ne nit ñu yàkkamti nañ ko lool nit ñi bëgg nañ ko lool la ci bindu noonu ñemewu ñu wax sax lim ba fi mu toll nii waaw li nga xam ne itam mooy kulliyat dirasatil islamiyya bi lépp lu ñu daan jógee di ko jàng ca université yu mag ya nga xam ne sëriñ bi ba mu tuddee wooteem bi waxoon na ne daa bëgg bu ñu doxee feek ñetti téeméeri at mu tolloog ñooña mboolem lu ñu fa daan jàng ci xam-xamub diine dañ koy jàng fii waaye dañ koy jàng nag ni ko Serigne Touba jàngalee dañ fiy jàngale itam ñi nga xam ne mooy mag ñu baax ñu nekkoon ci réew mi di bokki Serigne bi te nekkoon ci lislaam ñoom itam dañ leen fay jàngale seen xam-xam ngir gone yi fi génn ëllëg xam diine xam Serigne bi waaye xam réew mi xam may yi nga xam ne ak baax yi nga xam ne sunu borom def na ko fii ci réew mi bañ xam ne ba borom bi subhaanahu wa taala di séddale mbaax fàttewunu danoo jàpp ne sax danoo beral loxo te sëriñ bi waxoon na ne wala tuxasis fadla rabbin xat ala li di taxaddumin faqat fatajhala attallu qad yabdoo amaamal wabli wal fadlu lil wabli laa li talli waaw sëriñ bi wax waxoon na ne falay suyu jubu sawaadul jismi adamu fawzin bi azimil qismi loolu lañ bëgg nag ndaw ñu yóbbaale ko xam li nu sunu borom defal ndax nit lu mu xamul du ko mën a téye du ko mën a jàpp kon moo tax kulliya dirasatil islamiyya bi dañ fiy jàngale taarixu Sénégal waaye di fi jàngale sëriñ bi am na fi itam ab jàngukaay boo xam ne mahad tasawuf wa dirasatil muridiyya lañ ko tudde nga xam ne moom dañ fiy jàngale tasawuf waaye ni sëriñ Tuubaa jàngale tasawuf teg ko ci alfiqhul maliki wal aqida al ashariya mooy jiitu alfiqhul maliki wa tasawuful junaydi ci loolu lañ ko bëgg a tënk ñetteel bi nga xam ne mooy ñeenteel bi ci li ubbi mooy daare alquran ji majalis bi kulliya dirasatil islamiyya wal luxal arabiyya ak fi ñuy jànge mbirum kër docteur loolu itam dañoo waxtaan ak ñu yor wàllu kër docteur ci dëkk bi ñu xool li liñ gën a tumranke ci wàllu googu ñu bëgg a tàmbali tàggat ndaw ñooñu ñoo xam ne njabootuk sëriñ bi la ñu doon di dëkk bi ñu jàngal leen ko ci njàng ma gën a kawe ngir ëllëg ñu mën a tàmbalee jàpp ci dëkk bi waaye mu yaatu ba ci région bi ci réew mi ba ci Sénégal ba ci àddina bi yëpp loolu itam bu noppee day jàppalante ak indi ak hôpital bu mag bii ñu fi defal Cheikh Ahmadul Khadim bii fi nekk nga xam ne moom day daal di daal di àgg ca kaw rek fa université yu mag yi gën a àgg ndax loolu daa bokk ci li mënta ñàkk ci njàng mu kawe mi bu noppee nag incha allah ci addi ci kanam tuuti nag ñu tàmbali nag di ci topp njàng yi ci des ndax niñ ko xalaatee dañoo jàpp ne garab la garab gi mooy Touba nga xam ne asaala wal muasara bi ñu sëñ bi daan wax reen yi day sax ci lislaam di njàngalem sëriñ Tuubaa car yi nag di màgg di màgg nag di law bépp xam-xam bu am njëriñ rek mu mën koo ñoddi indi ko ci dëkk bi indi ko ci réew mi indi ko ci njabootuk sëriñ bi kon ñu ngi wàcce sunu kàddu bañ a guddal di ñaan sunu borom bàyyil nu fi sëriñ bi di sant sunu borom di ko santale moom itam sëriñ bi ci jëf ju màgg ji nga xam ne tàmbali na ko ñu ñaan mu yeggale ko ba tegaat ci yeneen yu baree baree bari tàmbali bi nag dañuy tàmbali nekk ci biir rek di doxal liggéey bi sëriñ bi nag mooy soobu mooy seet waxtu wu ko soobee ak ñum nu mu ko soobee mu yëglee ko noona wootee ko noona ngir ubbite gi waaye dañoo tàmbali rek nekk ci liggéey bi di dox rek di dox rek bu ko defee nag sëñ bi nag moom ci cadre ci coobareem waxtu wu ko soobee rek yëgle ga ak woote ga moom moo koy defal boppam ngi sant di gërëm tey ñaan mu yàgg fi lool te ànd ak wér salaamaaleykum wa rahmatullah kon mbokki taalibe ñoo dégg kàddu leeral yooyu mu jëm ci liggéey bu tedd bii nga xamante ni Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké yëkkati na ko ñu di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér naal yeneen dolli ci lépp ñu ànd kook moom ci sàkku ngërëmal Cheikhul Khadim wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa